c'est c'est c'est c'est unique laa la wax. mosul am mosul am. loolu bu amee mooy que cest dafa am un discours bi nga xam ne moom la les sénégalais les électeurs véhiculés tant que nag ñoom les députés des deux côtés ñu jël en compte le discours des sénégalais. Mm-hmm. est-ce qu'ils l'ont compris. mais apparemment. Mm-hmm. pour des questions de privilèges ou bien pour des questions de trucs les gens ne veulent pas comprendre ce discours-là te loolu. c'est la principale responsabilité c'est-à-dire que tey jii tant que nit ñi mënuñu dellu. ci fondamentaux député nañ ma baal nag ah j'ai hmm. beaucoup de respect pour les les les les députés mais ñu dellu ci xam ni que hmm. ils sont là pour la par la volonté et pour la volonté populaire hmm. mais Moussa Wade du ñu génn ci problème yi. d'accord euh, Pape Makhtar maa ngi koy wax sànq di di di ne on se croit parfois trop trop beau euh, suñu texte yi booy dégg juriste yi di ci wax da nga naan Sénégal na gars di ñëw di jànge fii mais tey lii xew assemblée li Pape Sané wax sànq 80 députés contre 83 députés wane na facilement que ni. on a des textes yoo xam ne ils ne règlent pas nos problèmes en réalité. parce que su fekkoon ne tey dañu am assemblée boo xam ne la fa bennoo am wala yeewee am ko fa peut-être y moo tax xamuñu fu ñu jëm. Euh, Moustapha mhm. man euh, je pense pas que ni textes yi nekk problème parce que ah oui? euh, vraiment am nañu ay textes yoo xamante ni yu leer nañu mhm. mais malheureusement dañu am euh, li nga xamante mooy mauvaise foi moo tax ba du ñu gis li nga xamante ni mooy lu loi di wax gis nga loi dafa am esprit am lettre mhm. bu ñuy ñëw ci constitution bi nga xamante ni mooy wax waxu incompatibilité da comprendre en fait lan mooy esprit bi esprit mooy fexe ba respecter li nga xamante ni mooy le principe mënoon na ni dafay dem nekk candidat président assemblée nationale en même temps nekk na ministre. Mhm. noonu nañ ko fal def ko président assemblée nationale. et le mercredi qui suit moom président assemblée nationale dem siège li nga xamante ne mooy conseil. conseil des ministres conseil des ministres moo tax euh, constitution bi nga xamante ne mooy charte ndey réew mi ni dafa am loo xamante dafa incompatible ak li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy euh, charge député parce que dafa bëgg ñu respecter li nga xamante ni le principe de séparation du pouvoir. Mhm. donc ñi nga xamante ne dañuy wax ay waxu euh, installation wa kañ la jël en fonction yooyu ay interprétation la yu malhonnête c'est-à-dire problème yi du texte yi. mais ñi nga xamante ne c'est l'interprétation mais mais effectivement parce que boo xoolee esprit esprit loi bi jarul ngay naan ay da ngay naan lan mooy lan mooy installation lan mooy lan mooy euh, entrée en vigueur. parce que la loi comme on dit c'est d'abord l'esprit. mais mais effectivement l'esprit la avant la lettre te esprit bi. Mhm. loolu la mooy jéem a fexe ba ñu sàmm li nga xamante ne mooy le principe de séparation du pouvoir maintenant li ngay laaj sànq ba tey. ñu mhm. bañ ko wax. Mhm. kenn mooy responsable bi mooy la République <laughs> ay député le président de la République convoqué Sénégal kese nga koy dégg Macron xalaatul benn xelam xalaatu ko mi toog di naan dafay woo ay député leen naan da leen jox ay consigne de vote moom honorable léegi la fi toog ni dafay remercier président Macky parce que dafa gis ni gis-gisam war na ci mën a continuer pour ànd liggéey Sénégal mhm. koo xamante ni yow yaa war a surveiller l'action gouvernementale nga taxaw nga ni da nga jël parti ci ki nga xamante ni moom nga war a surveiller loolu Sénégal kese nga ko mën a dégg c'est-à-dire dafa dem ba moo mooy li ma la wax sànq cest à man gis nga en face d'une violation boo xamante ni dafa flagrante bu ñu nekk ci réew boo xamante ni suñu principe de séparation pouvoir yii nii dañ koy respecter député bi xam lan mooy déjà lan mooy responsabilité xam lan mooy rôle xam aussi lan moo tax ñu ni député xam aussi lan mooy principe de séparation du pouvoir c'est-à-dire bu ñuy bu ñu ko foowee en fait mais malheureusement dañuy jàpp ni député léegi privilège la ki la teg foofu moom nga war a nekkal boo fa nekkee da ngay tàccub di yëkkati loxo donc tey je pense pas que problème bi nekk teg si mais dafa am ñoo xamante ne dañuy def de mauvaise fois di am ay lecture ak ay interprétation yoo xamante ne jaru ko fi li ñuy wax nii tey est-ce que tey Moustapha mën nga toog nga ni da toog di di substituer à la place des textes mënul tane mënoo nii parce que situation bi dafa inédite amul consensus yow nga ni yow yaay remplacer texte bi fan nga ko jëlee nga ni noo ni nañ tàmmee di def bulletin yi nii la nga ni non da ngay xëy suba nga soppi mbir yi te kenn du ci waxtaan Mm-hmm. nga ni non loolu nekkatul violation nit ñëw ni la posé naa la benn problème boo xamante ne bu réel la bu factuel sama bulletin nekkul ci ay enveloppe nga ni ko non da ngay continuer noonu dem ci élection léegi bu amee ay incident ñu wëlbatiku ni waaye yi nga xamante ni moom moo def incident yi moom moo moom moo moom moo am tort moom mooy le bouc émissaire donc je pense que il faut ñu delluwaat ci li nga xamante ne mooy li tax ñuy naan Sénégal république la te bu ñuy naan république dafa am li nga xamante ni ay pouvoir la dañu ni état du Sénégal ñett pouvoir la am pouvoir judiciaire exécutif ak législatif. Mhm. législatif ñu ni ko yow da ngay surveiller action gouvernementale da ngay euh, contrôler euh, lu mu tudd pouvoir politique yi mais aussi da ngay voter ay lois. ñu ne état bi yow nañuy doxalal mais yow mi nga xamante ne da ngay doxal dañ am koo xamante ne da mais bu nekkee nag kii di surveiller xamatul kan la war a surveiller a surveiller dafay demat ay surveillance yoo xamante yu complaisante la mais er, euh, malheureusement ci ay situation yii rek ngay kii ngay découlé mais munoo am système boo xamante ne dafa infaillible parce que un système infaillible n'existe pas mais chaque fois am nit ñu honnête ñoo xamante ne dañuy xam ni bu système bi baaxul sax ñoom war nañu mën a jàll def li nga xamante ne de bonne foi mais malheureusement loolu manqué Sénégal d'accord ak ki may bind ne le problème c'est pas les textes c'est l'interprétation qu'on fait des textes mais absolument alors may ma euh, tuuti ma demal après maam Birame tontu <laughs> waaw may ma nga bàyyi maam Birame wax après nga tontu baal tuuti ma ma ma am lu ma leeral allez-y xam nga c'est la deuxième fois ngay wax ne texte yi lii la wax mais li texte yi wax xanaa dangaa mënta lire article <laughs> 110 fii lan la wax ci député bi bi nga xam ne dañ ko fal ministre xam nga xam nga xam nga xam nga ñun aussi xëyuñu rek toog ci plateau di télé di wax xam ne lii nii dafa am lu ñu tuddee dafa am lu ñu tuddee la hiérarchie moo ci am dafa c'est c'est un gros mot li mu lay wax dafa am solo may ministre bi bis bi ñu installé